dal leen ak jàmm seen ànd ak seen seen youtube tas info bu dëgëree la aboneel kii di Ousmane Sonko gannaaw résultat yi nga xamante ni envoyé na ko fële ca bitim réew ngir ñu xoolal ko lu jëm ci produit bi nga xamante ne nee na dal ko ko asperger woon moom Ousmane Sonko publié na tey ji ci page Facebook am ni kat li nga xamante ne moom lan ma sutti woon ci le 16 mars bi nga ne mooy weesu nee na bi ñu résultat yi daal lam wane moo di ni wax dëgg yàlla la ci am moo di tentative assassinat ci jëmmum jooju moom mii nga xamante ne moo di Ousmane Sonko moom nag nee na loolee du ci avancé lu bëri ndaxte ñëpp mi ngi leen di xamal ne daal euh, ci fan yi di ñëw moom dina amal conférence de presse boo xam te ne dina ci euh, def wax ci point boobu nga xam te ne moo jëm ci tentative assassinat bi nga xam te ne doon na ko jéem a ci moom te it nee na bu boobaa ñoom dina def suite judiciaire ci communauté internationale bi ak politique bi yëpp. ngir ñu xam li nga xamante ne moom lañ def ci moom nee na nag ba léegi mm, wàllum wér-gu-yaram moom ba léegi xamagul nag yan conséquence la ci mën a indi waaye daal la am ba des moo di jamono ji ñoom ñu ngi saytu lu jëm ci mbir yooyu ak it eh, déposé ko mbir yu mel noonu ak it jéebaane ko ci ñu nga xam ne ñoo di communauté internationale bi nee nag lii fekk euh, conférence de presse boobu muy amal nee na nag nan intéressé wu ci li nga xamante ne moo di cérémonie présentation bi nga xamante ne moo jëm ci grand travaux yi nga xamante ne ñoom ñi nga xamante ne ñoo di waa mairie bu Ziguinchor ñoo ko war a amal mm, ci après midi tey jii moom ca la ko xam ne ni à partir de 16 heures daal ñoom dinan wane. exposé li nga xamante ne moom la mbébét mu di ay projet yoo xamante ne ñoom bëgg nañ ko def ci fi nga xamante ne moo di euh, fee di Ziguinchor di ay projet nee na yu nganda ngand yoo xamante ne euh, dina mën a amal njëriñ ñi nga xamante ne ñoo di waa Ziguinchor